Casamance armée sénégalaise bi taal na fa lu toll ci juróomi base rebelle yéene kaay gi di réew ne en tout cas ji armée sénégalaise bi ñoo ngi def ay opération ci diwaanu Casamance te nga xam ne nag fa ñuy mujj maanaam mboolem ñi nga xam ne ay rebelle lañu bokk ci MFDC seen base ñu daal koy teg loxo yéene kaay gi di libération dañu xibaar nan ñu géej gi ba léegi nii ma ngi rey ay xale place bu Malika am na ñeneen ñetti xale yoo benn laam yéen a kaay gii di Le Quotidien nee lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay xale ñoo xam ne faatu nañ ci géej gi diirub lu toll si ñetti weer yéen kaay gii di La Tribune nee na nag li nga xam ne moo ko waral mooy seetaan gi nga xam ne kilifa yi ñoo ko seetaan yéen kaay gii di Le Quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky Sall nee na ñu jël ay matukaay ci xale yi nga xam ne ñooy faatu ci géej gi waaye seetaan gi nga xam ne moom la kilifa yi di seetaan jamono ji jéggi na dayo yéen a kaay gi nee na am na lu toll ci fukki xale yoo xam ne ci géej gi la ñu duggoon te ba léegi nii kenn gisulee na yéen a xibaar naan ñu armeel yu Pikine yu Thiawlène yu jokkul yu dangu jamono ji nag maanaam ci saturé ci la jëma fees na dell yéenekaay gi di Dakar Times xëy wax ci élection 2022 nee na nag fi nga xam ne fi la ñu jëma maanaam couplé élection locale yi ak élection législative yi maanaam daal leen di boole yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu campagne électorale bi jamono ji commencé na te waxtu wa jotagut ndax ki nga xam ne mooy Macky Sall ma ngi def ay tournée Bougane Gueye Dany moom te ma ngi def ay tournée grand parti bu Malick Gakou ngi def ay tournée mouvement démocratie ñoom tim ñoo xam ne moom la ñuy gis ab campagne électorale ci Sénégal te waxtu wa jotagu la yéen kaay gi di réew na tournée économique bi nga xam ne koy def ci diiwaanu Fouta yëkkati ay kàddu nee na yi nga xam xamante ni ma ngi koy def daal loolee waree fam la ndax loolee moo tax ñu teg ko ci bopp réewum Sénégal yéen kaay gi de la Soleil njiitu réew mi di Macky daat nay wax ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci diiwaanu Fouta nee na leen contrat de confiance bi nga xam ne moo dox suñu diggante dee dafay woy yéenekaay gi di la Quotidien nee na tournée économique bi nga xam ne Macky Sall ma ngi koy def maanaam ma ngi def ay inauguration ma ngi pose ay première pierre waaye nag Macky Sall tamit ma ngi def ay discours politique kaa gi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Daouda Diallo nee na Podor amuñu benn jafe-jafe amul benn doléance boo xam ne Podor am ñu ko Podor daal good fine yéenekaay gi di la Témoin nee na en tout cas li am ba de Sall mooy Macky Sall ci ab campagne politique déguisée ci la Macky nekk yéenekaay gi di ñu xëy fekk fa député Cheikh Abdou Bara Dolly bokk ci bokk gis-gis nee na Macky Sall ak tournée économique bi nga xam ne ma koy def dafa bëgg a camoufler lajj gi nga xam ne lajjoon na ko ci manifestation yi nga xam ne moo amoon ci moom Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly nee na nag ñi nga xam ne teg nañu leen loxo ñooñee Macky Sall da leen a war a libérer Macky Sall nag jamono jii dafay lëre ñi nga xam ne ñooy xale yi yéen a gii di fu ñu xëy fekk fa Bougane Gueye Dany nee na li nga xam ne moo am ba mooy askanu Sénégal ñoo war a jël seeni responsabilité ni moom lay bu Cheikh Omar Anne mi ñu dénk njàng mu kawe jaaxal na gaa yi bare bare ndax nag bërki démboo Njaay discours bi nga xam ne Cheikh Omar Anne ma ko doon def maanaam ay fuuti kese la français débrouillard yéen a kaay gi nag nee na faute grave yooyee nga xamante ni ministre bi ñu dénk njàng mu kawe def bëri na ñoo xam ne daan nañu koy naqarlu rawatina mëri taw ñaana yéen a kaay gi de la turbine xëy dañu xibaar naan ñu université Sine Saloum amul benn infrastructure boo xam ne am na fa loolee moo tax étudiants dañoo mer ba futu dem ci kër Macky Sall ngir wane seenu naqara yéen a kaay gi di Vox Populi innocent jamono ji soxla nañu li nga xam ne mooy deret te li ñu nemmeeku ci Sénégal bëri na ay sénégalais yoo xam ne du ñu mayee deret yéenekaay gi di Stades xëy dañu xibaar naan ñu coupe du rab tey jii diggante France ak Allemagne loolee choc la yéenekaay gi di Stades xëy wax ci sunu infrastructure sportive yi nga xam ne ci Sénégal gis nañ ne jamono ji maanaam dafa yàqu yaxee te am na loo xam ne Sénégal mérito wu ko ndax turbine yi jamono ji dafa yàqu éclairage amul ci stade yi amul ci infrastructure sportive yi ba pare ñàkku kaaraange gi nga xam ne moom la ñu nemmeeku